asalaamaaleykum sëriñ bi. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ndax ñuy baal nga fàttali sa tur ak sa sant bi nga daal di présenté wu su ma ko mënee waxee noonu. waa maa ngi tudd Cheikh Moussa Ndiaye nekk fii ci pharmacie PA yi Géejawaay maa ngi leen di nuyu di nuyu mbokk yi nga àndal yëpp waaye di nuyu mbooleem équipe bi àndak ak ci Kewlo Kewlo nga xamee ni. yéen a ñëw waaye <laughs> ña fa desit ñu nga ci liggéey bi ñu ñaan yàlla subhaana wa yàlla dafa leen tawfiq ñu ngi nuyu Babacar di ko ñaanal yàlla di ñaanal groupe bi yëpp alhamdulillah Sëriñ Cheikh Moussa tey dañoo fas yéene waxtaane ñaari mbir mm-hmm. nga xamante ne moo di crise bi di ñu tuddee ko crise épilepsie ak li nga xamante ne loolu lañ tuddee euh, crise waaye ci wolof ñu koy naan rab ñu nar a tàmbale waxtaan bi ci ponk bu nga xamante mu njëkk bi mooy crise lii di crise épilepsie euh, lan nga ñu mën a wax ci lu nga xamante ne moom mooy di lii di crise crise épilepsie waaw alhamdulilah laaj bi crise épilepsie loolu baa tubaab la waaye wolof yi dañ koy wax kuy daanu mbër fëreen daanu mbër fëreen mooy baat bi ci wolof tubaab nag crise lay wax crise mooy daanu ban crise ñu ne épilepsie parce que crise dafa bari façon nit ki mën naa am épilepsie mën na am daanu euh, façon yu bari ñu fekk mu daanu dañ lii ban façon daanu la ñu ni dafa miir daanu waaw ñu ni dafa anémie waaye lii ñuy bëgg a waxtaane tey mooy li nga xamee ni euh, ñu bari ci ñun ñu ngi koy dund wala buñ ko dund ñu ngi dund ak ñu koy dund mooy ñi nga xamante ni daanu crise crise nag bi ci ni bëgg bi ni njëkk a waxtaane mooy daanu épilepsie daanu épilepsie lu metti la lool sax ci doomu aadama ndax doomu aadama bi bu ko dalee da ngay gis ni euh, li ci ëpp ñiy daanu épilepsie guddi la ñuy daanu ñi ci ëpp bu nu daanoo épilepsie fa nu tëdd bu nu bala noo jóg dinañ saw ñi kii daanu épilepsie ñu koy wax mbër fëreen euh, bu daanoo crise ñaare day génne ay fuurit yu tax olof yi sax dañ wax naan fuurit boobu bu la laalee dalay wàll jàngoro bi ñaari kemp épilepsie su daanoo léeg-léeg mu màtt làmmiñ mi wala mu màtt tuñ wi ñaari ki amee épilepsie buy daanu du xam fu muy daanoo day xëy xëy rek dóor boppam fenn bu dee kenn newul fa mun na gaañu nit ki ni ngay xamee ne am na épilepsie mooy bu daanoo day kadd kadd yi yaram yi day wow koŋ léppay wow mooy waral bu daanoo ba pare journée li des ci bis bi bu daanoon suba bis journée bi yépp yaram yi day dee du man dara parce que jël bi dafa metti ndax day ànd ak concentration boo xam ne ni kekk lay def xool benn place boole koog nag li tax mu gën metti ki daanu da ngay gis ni day ni mi ni mi ni mi ni li muy génn nga dégg mu nga gis dégg xam ni kon lii metti na nga gis ni mu concentré woo wow koŋ koŋ lay def loo téye ci day boole ko nag di xiiju xiij ndeysaan te du ci yëg dara kooku loolu mooy épilepsie beneen bi ci des ku ci daanu ñoom euh, waaye ku ci daanu mën nga daanu forme boo xam ne nii mën nga gaañu mooy mbëkk miir wala bu doon jigéen di togg wala muy taal ataaya mën na ca daanu moo tax ku am épilepsie dañ lay tere ngay togg waaye fu loo xam ne mun na la gaañ ci lu gaaw lu tax parce que jëli bi mën na laa jëlal indi la fu nekk maa ngi naa la am na ñoo xam ne ni ci ëpp guddi la leen di daaneel bu seen yaram seddee waaye am na ñoo xam ne ci añukaay ba fa la leen di daaneel fa nit ña nekk ñu añ wala ñu dem marché ca biir marché ba ca biir mbooloo mu dëkk rek affaire bi dikkal leen loolu da cee am bu ko defee léegi-léegi buy déclenché da ngay gis ni ci loxo bi lay mel ni courant bu maas jëm kaw ci bopp bi am yoo xam ne day déclenché ci bopp bi lay déclenché rek du xam fu mu nekk di xiin xiin ba xëy xëy na rës fenn waaw bu ko defee nag loolu mooy yi nga xamee ne ay signe la ci ñi nga xamee ne dañuy am jëllub mbër fëreen ñu koy wax épilepsie man nag jànguma tubaab ay wolof laay wax mooy li ma wax mooy mbër fëreen xam nga mbër fëreen loolu mooy différence ak yeneen daanu yi jëll yi parce que comme ni ma ko waxoon jël yi bari na mais yii moom ku ngeen gis muy daanu bu daanoo matt làmmiñ mi benn ñaareel ba bu ma daanoo gémmiñ gay fuur ñetteel ba bu daanoo en général fa mu tëdd dina fa saw en général bu daanoo mën na kanam gépp mën na ko dóor fenn mu dagg ba nga xamee ne boo ko xoolee xam ni kii cicatrice yi dafa yàgg daanoo kooku muy épilepsie mu wuteeg nag rab mu am na it ci diggante bi koo xamee ne nii dafa am épilepsie mais dafa ànd ak ay rab <laughs> muy loo xam ne lu technique la loo xam ne faw nga xam ko xam ni kii saa nga yor benn appareil mais di nga xam ne kii ñaar yi ñoo ko laal léegi nag nga war a seet boo <laughs> wut solution noo koy solliciter kooku kon épilepsie mu ngi noonu kon képp ku ko amit dañuy ñaan yàlla nga wéral nga wér jàmm ndax li tax mu bon mooy bu la daaneelee fajoo wala nga faju ba sonn toog kooka est dina amati njariñ déedéet yéen ñëpp déedéet ngeen di wax bu daaneelee nit ñu yóbbu ko hôpital bu dee épilepsie yu yu yu garaaw yi àgg fenn fi ñaari ay doom lañ koy jox pour jël yu soree waaye dangay gis léeg-léeg mu may kow yaram yàq sidit yi loolu it dañuy wut solution rek moo tax moo fi nekk boo gisee ñi koy waxtaane comme ñun dañuy faj fajum médecine islamique traditionnelle waaye di ànd ak waa moderne médecine moderne di faj di ànd ak ñoom moo tax ñuy waxtaane lii ndax léegi-léegi nit ñëw am épilepsie bu doy waar nga ne ko demal si docteur ñu jox koy garab pour jël yi sore nga toppale traitement bi sinon day gën a gaañu ndax koo xam ne ñaari fan ñetti yi mu daanu wala bis bi mu daanu ci ñetti yoon kooku mbiram dafay metti nga gis ni day topp koo xam ne ni day topp docteur rek di jël garab yi di gën a rëy di jël garab yi sa waay yaram bi di di di di dem ba du am njariñ nga gis koo xam ne ni jëlul doom yi mais fu mu toll mu ngi daanu aussi xam nga loolu conséquence la te yow kon ñaari danger moo la séq soo toppee ci garab yii dina am lu mu la def beneen bi ci des soo toppul garab yi dinga nga am lu mu la def kon nooy def foofu moo tax na gën di waxtaanee mbiri jàngoro di jéem a waxtaane aussi euh, ay solution ndax mbir moom jàngoro suñ ko xasee xam yaakaar naa ni solution it moo ci am solo bu ko defee ñi nga xamee ni ñu ngi fekke nit kuy daanu moo xam ci mbedd la ñu bàyyi ci xel surtout bu daanoo ci suuf xam nga comme moom mënatul def dara teg dooleem yépp dog bu daanoo day ñëw ba àbb yeneen doole sax kooku bu dëppee kanamam ci suuf wala luy gaañu bu nu gaawul toppale ko kooku day gaañu mën na dem ba dee ci sax ci lu gaaw te fekk na dan koo assist assistance la amul lu tax parce que ñu bari ci ñun buñ gisee kuy daanu surtout gémmiñ ji fuur wala yu mel noonu dan lay daw loolu buñ daw nit buñ daw nan leen ñaan rek bu kenn dawati kenn parce que buñ leen dee daw it dinañ gaañu te wax dëgg yàlla mën nga sauver te alxuraan dafay wax ni ku dundal kenn nit mel na nga ku dundal adduna bi yëpp mais ku seetaan nit ba mu dee dafa mel ni da ngaa rey kooku nag buñ ko seetaan kon loolu laa doon wax ci buntu boobu mu des nag ki nga xamee ni dafa am rab waaye dafa am épilepsie kooku it loola ñaari boo ko laajee mun la euh, maa ngi daanu nii de épilepsie moom nii la nga koy gise moom xam na ni épilepsie la docteur bi xool na ko ba xam ne ab épilepsie mais ba léegi mu ngi daanu la koy waral nag léegi-léegi waa ji wala ndaw si dafa amee àndandoo dafa amee rab rab boo xam ne nii crise bi ci boppam moo arrangé rab bi parce que dafa bëgg a handicapé nit ki parce que rab moom bu leen fàtte ni jubluwaayam yépp ci nit mooy baare nit téye nit contrôler ko su ko mënta contrôler daf koy gaañ waaw wax nga sànq léegi ni am na bi nga xamante ne wax nga ko balaa ñu yegg ci bi nga xamante ne moom moo ànd ak ak rab bi mm-hmm. beneen bi lan lan moo koy joxe daal lan moo lan moo joxe épilepsie bi nga xamante ne wax ma la bi ànd ak rab bi mais beneen bi nga xamante ne euh, bi nga rëpp épilepsie kep kese la mm. ah loolu nag moom xaw ma ko xam naa ñu def ci gëstu kon <laughs> dem ci <laughs> docteur yi nga xamee ni seen domaine loolu moom la mais ñun liñ ci xam te di ko saafara loolu la ñuy wax amaa technique ba la ko waral ci biir nag ñi ne neen courant bu ëpp la ñi ne neen ay sidit lay laalaate waaye loolu yëpp nan yam fi nu yam rek ñun <laughs> ci la xam li ci des nag ñu yokk ko su ko defee ñu laaj professeurs yi ak sunu borom xam yi li ko gën a gën a gën a waral parce que bu kii nii kii nii laa loolu du xam-xam xam-xam moom vraiment ay nekk lu leer nañ waaye daal ñi ci gën a bari moom li nu xam mooy ñaari sidit ñaare yu maas mu ngi mel ne courant courant ñaari fili courant yu laalante leg leg mu ne ray nit ki boba ñu ne jël bi da koy tikkal parce que affaire bi courant bi ëpp ci yaram bi lolu la ma ci jotton expliquer fala yam nak comme ñun nak saafara ëpp li nu jangal faj garab gi ko koy faj wala ñaan gi koy faj wala ni nga koy waxe ki koy encadrer pour mu baña a wala dang ko wara orienter ci docteur bi ba ci kanam lolu la nu jangal lolu la ci la ni nek di ci yëngu barakallahu salat bi amna solo torop parce que dina dimbalewaat ñun ñëpp <laughs> ñu xoolaat loolu. waaw kon ñu bàyyi la ngay woy la ak crise bi nga xamante ne moom moo ànd ak. crise bi nga xamee ne moo ànd ak rab. ñaare bu demee si docteur yi tey jii ñu jox ko garab day continuer di daanu te garab yu baax la doon ci moom waaye day continuer di daanu beneen bi ci des nit ki nga xamee ne moo am épilepsie boobu il faut nga toog laaj ko waxtaan ak moom ñaare boo waxtaanee moom mun la man sama xol day tàng te kenn du ma tooñ. ñaare nga waxtaane ak moom mu ni la man bu guddee damay gént ñu may dóor wala ñu may dàq wala may def dara ci sama loxoy wala sama bopp bi mais am na luñ koy def di ko jam wala xam nga dañuy jamaate ñoom wala xamoo loolu joolaay dañuy jamaate <laughs> jinne joolaay dañuy dàqaate dañuy tiitalaatee da ngay daw topp àll bi rek di dugg ci àll bi daw forêt bi ah forêt Casamance da koy def <laughs> loolu joom da koy def bu boobaa na nga xam ni mbiram dafa am lu ci rax mooy waral mag ñi koo ci dégg mu ne la feebaram bii dafa rax feebar la waaye nag feebar bi rax na moo tax docteur yi ñoom xam nañ ni feebar yu bëri dafa rax parce que li ci ëpp bala noo dem hôpital ci ñun ñii la ñuy jaar xool gis ni vraiment du lii ça va léegi dama ci docteur mu xelam door a dal su demee boole ñaar yëpp parce que am na yoo xam ne nag dañ lay jàpp ba pare orienté la ci fa nga xamee du la faj. loolu baaxul mu ngi mel ni benn jibarkat féticheur féticheur mën a topp nit def ko li mu koy def ba pare orienté ko feneen foofu foo xam dafay gaañoo dafay gaañoo te da koy laaye biir kat mais lu koy gaañ la fa la ko orienté am na rab yoo xam ne aussi noonu la ñuy def nit ki ba gaañ ko jàpp naa ne loolu doy na ci wàllu épilepsie ñu xam ne daal lu metti la feebar bu metti la xale da koy def nag xale day juddu di crise am épilepsie mag da koy am góor da koy am jigéen da koy am loolu moom ñu ngi bàyyi ci xel kon lii ñuy waxtaane ñun ñépp la concerné ndax kenn ku nekk boo xoolee ñi nga nekkal fi nga dëkk xam nga ni kii kirisam bi yàgg na wax kay te fi mu wutee kiris rab nag mooy ko am kiris épilepsie du yuuxu mukk du yuuxu du jooy <laughs> yuuxu du jooy ku am rab a koy def dina ñëw léegi ci crise rab kon ñu tënk foofu dugg ci deuxième tombe bi mooy crise crise rab ñi am rab crise bi nga xamee ni nag mooy différence ak crise épilepsie mooy crise rab ah, xam ngeen ni ñii daanu rab dugg ci biir kër yi di daanu dem ci entreprise yi di daanu dugg ci école yi di daanu xam nga li ci ëpp fi mu ne mooy école moom ñëpp xam nañ ni moom fukki at ak juróom yi passé ñaar fukki at phénomène daanu ay rab ci école moom ñun ñépp ko gisandoo daanu ci kër yi moom lu leer na mais dem ba ca digg marché ba nag muy muy biir école xale yi yeeg professeurs yeeg élèves yi ñépp yëg ni yow yuuxu nga kooku loolu yaakaar naa lu nu seetlu la mu nekk phénomène loolu at yee passé kenn gisu ko woon mais lu waral lii te ñooñu bu nu daanoo yuuxu bu kenn yuuxoo day mel ni joolaa bu yuuxu bu yuuxoo rek keneen ka dina yuuxu daanu wala wala séeréer yuuxu wala manjaag yi <laughs> ku ci yuuxu nga gis ni kon dafay mel ni daf koy transmettre kële yuuxu bi mu dugg ko yuuxu moom it mu daanu classe bi xumb kii téye fii kii téye fii ngay nodd mën naa la bàyyil bul noddati ngay tudd yàlla walla du noonu ah? ngay tudd sa borom allah yàlla mu ne bàyyi loolu ngay tudd kooku koy xam ngeen ni nag yaa xayti mu am na ab séeréer ya fa walla <laughs> wala joolaa séeréer ya fi ne foofu moom mbay <laughs> séeréer yi la bul tudd loolu bàyyi loolu kii dama koo bëgg dama yàq njàngam na bàyyi njàng mi loolu nga di ko dégg kooku crise lan la yéen ñëpp d'accord ngeen ni loolu moom mbiri seytaane la crise su seytaane kese la waaw ñaare bu daanoo léegi-léegi nit téye ko ay nit téye ko muy ñetti nit ñeent te bu yëngatoo rek daaneel leen yor doole joo xam ne amu ko woon ba pare ni xulli la léegi-léegi nag léegi-léegi nag nga tase kenn moom <laughs> du la mën a xool wala loolu de du la mën a xool de day day sëgg rek di wax waaye du la jàkkaaroo yu mukk am koo xam ne daal xujj di leen xool di wax nag li ko neex waaw dama ko bàyyi wax di xataraayu foofu mel ni mbër mu <laughs> Mundur nga dox mom, ak mom mu bëgg fayu wala yooyu mbiri kirisu rabango daaneel nit ki fekk buy déclassé momit bob bi lay wala mu metti birbi, bi fi mu toog ba yag rek day melni kumir rek yuux tëll ci suuf waaw lolu ñi nga xamé ni dañoo am kirisu rab nu mandar gay nonu la yakana fofu foofu it nañ ko mm-hmm. waye leer na Christ rapide ku ko am boo daanu woon léegi boo jógee mën a doxi say soxla way ah mooy différence ak épilepsie wala li ñu doon waxtaane léegi mais ki daanu épilepsie lu ma ci waxoon su daanoo léegi ci suba gi lu ma ci wax mën a dem sa bëccëg journée bi de koy jàpp parce que sidit yëpp la laal mais kii nag bu dee moom benn partie la jàppoon ci bopp bi mu dem ba nit ki àttanatu ko mu daanu fa la déclenché wala fim ko daane la moy yuuxu la ak tit mu jaare ko fit dem mu daanu kon xam nga amna na kon te bu ko daane pare bu pare mu jog doxi soxlam xana tang mu meuna naa crise bi mën ko bayi crise bi aussi mu dess bopp bu metti ba leg leg nga dem ni meuna la bàyyi na ma mais crise mu meuna doxi waxi soxlam lu waral li mu expliquer le lepp foofu nga tollu foofu noonu sax foofu la bëggoon samp ab ab laaj may mbokk yi auditeurs yi ne ñu ngi and eh, waxtaane lii di crise bi di ñu tuddee ko crise épilepsie ak lii di crise nga xamantene moom lañ tuddee crise bu ànd ak rab mm-hmm. ñu and si ak eh, Cheikh Moussa mm-hmm. wax nga ko sànq léegi nii am na ñu nga eh, des fois sax mën nga génn si si timis ngay doxi soxla surtout rawatina jigéen ñi doo mm-hmm. nan la crise bi nga xamante ne moom moo ànd ak rab du mënee dugg nit jinne manam nu jola mën a nit wala <laughs> séeréer lol nga bëgg laaj loolu benen tomb la loolu dinañ ci waxtaan parce que li ngay lay dafa nim ko mane dafa bari wala lol ma nimko ko mane bari na la wax xolal bis bi nga takkee jabar di am rapport ak mom bis bobu man la top dugg day top bo xamé ne dom day sosu man nako top topp ak ci bir bi nday ji ko xanaa sori na de abdel de bokkut ak dox daje rek jinne tugg la kon xam nga ni kon histoire bu gudd wala wala dengen ngeen lulu ma wax loolu histoire bu gudd la waral ñi nga xamee ni dañoo am jinne cosaan <laughs> seen bir compliqué ko jangal kon dañ ko jang sa say bu xam ne juuf bàyyi ma ko jangal kon du lu ñuy doon ki ko jàng ki ko jangal sama ndiyaay ab la sama ndiyaay ab la kon lu nu la lii lii la lii lii la ngay bind Nek ci wetam mu lay def lo ngay def loolu ba am ci expérience loolu moo ñu ci jot loo mais du ndono. jàngoro yi la ñu waxtaanee mooy di crise bi épilepsie ak beneen nga xamante ne moom moo ànd ak ak rab yi. Mm-hmm. xam naa ne xëy na da ngay faj yeneen euh, jàngoro yi nga xamante ne yow yu bokkut ak yéen ni ku bëggoon ñëw tey si yow euh, ban adresse ngay mën a joxe. waaw ñun ñu ngi Géejawaay pharmacie yi euh, foofu la ñuy nekk waaye dañu am centre aussi Thiès mooy centre Al Afia ku xool ci YouTube bi sax boo defee tànn Al Afia rek mooy sunu seen YouTube. Euh, émission yi ñuy waxtaan yëpp tënk nañ ko ci depuis des années mu ngi fi bu ko defee dañuy nekk Thiès waaye dañuy nekk Dakar Guédiawaye PA yi dañu ngi fi di ànd ak suñu mbokk yi Cheikh Ibrahima Touré ak mbokk yi nekk fële yëpp incha allah waaye xam naa beneen yoon waxtaan wi ci toppaat ñu def ko nag ci mbiri rab ku am rab nu mu koy xamee loolu yaakaar leer na ne léegi tey ma génn nag <laughs> ki am ndaw wala rab wala seytaane la wax ak wala junnee ko topp léegi tey ñu leeral leen ko incha allah mooy waxtaan wi ci toppaat bu soobee yàlla kon ñu ngi lay gërëm di leen sant di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal leen tawfiix ak taysiir liggéey bi yàlla na yàlla barkeel ko aywa barakallahu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa